salaamaaleykum mbokk yi tey dama xëy fas yéene woon set si sama xarit bi nga xamante ni yàlla nu boole woon man ak moom muy sama wéttal sama yaay soxna su mbay sama xarit bi nga xamante ni maa ko daan wax naan ko ginnaaw yàlla ak yonent bi sama borom so la neexee ray ma su la neexee sànni ma su la neexee saraxe ma tey gis nga lii la yàlla dogal ci moom tabarakallahu moom laa ñëw moom laa ñëw fo yéene koo xool si moom laa ñëw nii di ko siyaar si waaye nag da ci am loo xamante ni man dama ko def su ma ñëwee ko fii moom euh, ici repose soxna Astou Seye Mbaye janvier 2024 euh, man su ma ñëwee moom fii laay toog damay mel ni kama daan waxal ba muy dund moom laay waxal ba léegi maa nga daan wax mbaay waale omar jooja anta maali ganna parma jigéen farba samba saneex sappen de mur jëréer xallak machine wal jooje jaxaw ma bajan kon ma daan dëggal lingeer wallahi sama digganteeg yow dog mukk barke alxuraanul karim na ma la bëgg ba ngay dund bi nga faata woon ma ginnaaw laa la gën a bëgg asalaamaaleykum waaw docteur waaw sama yaa ngi nii mu ngi ñëw waaw ñëwuma <laughs> ñëwuma dama lànk ñàkkuma sëñ Babacar ñàkk na ma sëñ Babacar billaahi wallaahi bi nga faatoo damaa toog fii bi ñu lay rob ni la jàmbar dëgg ngi noonu aw lu nu mën yow la barke alxuraanul karim suñu nit ñi respecté yow la nit ñi ñu joxee cër yow la su nit ñi joxee personnalité yow la waaw benn jigéen bu mën fukki góor ci yow laa ko gis barke Seydina Muhammad waaw moo tax bala ma ñaanal ci barke yonent bi bala ma laa ñaanal ci barke Seydil Hadji Malick bala ma laa ñaanal ci barke Serigne Babacar si bala ma laa ñaanal ci sa barke Serigne ba Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum bala ma laa ñaanal sa barki soppe bi Seydou Mouhamadul Moustapha responsable moral dama lay tagg ba pare wan la ni la sama diggante man ak yow tey la gën a dëgër. billaahi wallaahi su ma toogee fii damay mel ni ku nekk sama kër damay nekk à l'aise billaahi wallaahi mbay waale Omar jooju yal na yàlla jéggal la yal na yàlla yërëm la yal na suuf oyof sa kaw yal na sa bàmmeel leer ka barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. waaw comment waaye booy maa ngi lay ziar booy woy dama demoon États-Unis waaye indi ay conteneur sama yaay mu nga màkk c'est vrai. <laughs> maa ngi lay gën a bëgg tey laa la gën a bëgg te laa la gën a bëgg tey laa la gën a bëgg Mbaye Wally tey laa la gën a sopp wallahi alazim billahi su ma toogee fii damay waxtaan comme kuy waxtaan ak li muy dund rek waaw problème bu ma am dama koy wax waaw problème bu ma am wax ko bu ma am wax ko billahi barke alxuraan tey laa la gën bëgg dem bàyyi waale sama xarit bi wallahi bu fekkoon muy dund heure bi reetaan na bu yàgg barke alxuraanul karim wéetal nga ma lool mbaay waale billaahi yaay booy maa bëgg yaay booy maa bëgg yaa ma leen gënal dama wax yaay booy je t'aime dans mon cœur je t'aime au fond de mon cœur le bébé qui aime je t'aime comme le lion qui aime la viande je t'aime maman